Internet Dakar Actu nous ngi leen di nuyu amaat nañ mbégte bu Dakar Actu TV euh, tey nag ñu d'actualité yoo xamante ni moom moo soxal mu d'actualité loo jëm si politique walum foncier bi voilà ñu war see waxtaanee ji ak euh, ki nga xamanteni mom mo nek Mustapha Moustapha Diakhaté Moustapha Diakhaté nag euh, ko waxé euh, ancien directeur cabinet bu président de la République Moustapha Diakhaté tamit nekkoon président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk si ci douzième législature alors Moustapha Diakhaté kuko wax xam ko son liberté de ton Moustapha Diakhaté liberté de ton bobu taxone ba ñu parti bi nga xamanteni mom alliance pour la république loolu aussi mu taxawal li nga xamanteni mom mo l'initiative pour la refondation de l'alliance Manko Taxawu Sunu APR alors président Moustapha Diakhaté am nañ mbégte bu si Dakar baax TV. Monsieur rahman rahim ngi nuyu di le jaarale ci nuyoo bi nuyu sa mbokk yi nga àndal liggéey bi hmm. ak waa Dakar ak bi yëpp di nuyu waa sénégalais yi nga xam ne ñu ngi nuy seetaan tey ñaan yàlla waxtaan wi ñu def ci dëgg tam ak teggin hmm. te jur euh, njariñ mën naa leen rek laay rectifier ci présentation bi mooy néew moon directeur du cabinet président Macky Sall mais chef de cabinet laa nekkoon hmm. loolu rek bi ci des nag jàpp ne du ma ne rek dañ ma dakk parce que dama am liberté da nga nan kay. dañ ko dakk bi mu tuddee ne Macky Sall mënut a am troisième mandat. waaw loolu mo fi jël loolu daal nga jàpp fu mu nek ni <laughs> waaw loolu tañu dakk dàq moom moom. li nga tamit bokk na ci liberté de tool non liberté de tool dama mais dama bëgg ñu laal laalaake bi rek. mooy que na wax samay xalat te daaw ma dàq daanañ daanañ wuté gis-gis. te daaw dakk waye nak bima laalé ma laalee troisième mandat bi hmm. da melni ku taggo sagom bon mais graw loolu mu fet na laal nga 3e mandat président ñu dakk la est-ce toujours yaa ngi soutenir idée bi nga xamante ni moom nga doon soutenir. loolu ah tax la tey tey laa ko gën a gëm. Eh, ñiy jàpp ne di ci am leneen lu ñuy xa lu ñuy lu ñuy xaar ñu ngi ciy réer maintenant nag la teem mën a am moom. Mhm. pour man mobilisation bu wér a wér la doon rek. parce que pour man cette question est réglée maanaam ndax président Macky Sall bi mu prêté serment 2012 constitution bi mu doon waate dañoo limité mandat bi à deux. Mhm. ndax loolu président Abdoulaye Wade du 22 moom bi mu faloo ba noppi mu wax ne day dëgëral. Mhm. limitation ñaari mandat yi. Mhm. dugal ko ci révision constitution bi 2016 bi. Mhm. moom ci moom waxal boppam ne deux bu falowaatee am deuxième mandat dootu wut beneen. kon jàpp ne constitution bi ak kàddu boppam tënk na ko ba wut troisième mandat warul nekk cim xelam. d'accord am te kon na xëy na am na ñu ko ci ñu ko ciy pousse. moom itam xëy na mu ngi bëgg na ko. waaye loolu moom jàpp naa su bëggee jàmm jàmmi boppam ak jàmmi réew mi. dina ko teg fi loolu nag du nit ñi xaar ba deux mille vingt quatre ñu door di ci jëf. dañ cee war a tàmbali wax léegi. Mhm. war cee tàmbali di jëf léegi. Mhm. parce que suñ ko defut bu ñu demee ba 2024 mën naa maanaam musiba naaru lay mën naa man li daloon Sénégal ci ab ak Abdoulaye Wade 2011. ba mhm. fukki nit ak ñett faatu. bu ñu defoon ndànk lu ëpp loolu dina faatu loolu nag képp koo xam ne. sa sàggan sa seetaan sa téye say loxo moo tax loola am da nga am responsabilité bu rëy rëy rëy d'accord yaa ngi wax léegi jëf jëf boobu noonu lan nga si jublu wàcc sur le terrain euh, def affrontement wala lan la exactement wàcc wax ak président de la république waaw ah, xam nga constitution bu Sénégal dafa ah, dañ cee jox askan wi ay sañ-sañ mhm. ay devoir ak i droit tout à fait léegi bokk na cee lu nit ji maanaam nit ki bu amee lu ko naqari sañ na mhm. sañ na cee wa mhm. sañ na cee sañ naa wàcc ci mbedd mi aussi pour loola loola bañ a am. d'accord ñett yëpp day sañ-sañ yoo xam ne constitution de la république Sénégal moo ko may askan. Mhm. nit ki nag li ko li ko ak constitution may. Mhm. war na ko jëfandikoo bu jàppee ne li nga xam ne fa dañ fa lañ ko jëmee du lu baax. d'accord kon wàcc wax ci. Mhm. bind ci. filmé ci wàcc wàcc ci mbedd mi. dox ci wala nga toog ci mbedd mi loolu lépp ay sañ-sañ la yu nu am. war nañ ko utiliser bu fekkente ne dañoo bëgg a xeex loo xam ne ne jaaduwul. d'accord président Moustapha Diakhaté sànq maa ngi koy wax ci présentation bi tey ñu war a waxtaanee euh, question d'actualité alors euh, président euh, ban analyse ngay def ci situation bi nga xam ne la réew mi di jànkonteel jamono ji ñu nekk ci lii di pandémie Covid 19 chaque jour presque on compte à 4 ou 3 morts alors tey ji euh, ñu gis ne c'est le déconfinement politique dans les radios dans les plateaux télévision non que jàngatee. Wa xam nga euh, guddi yu toll moom Sénégal mingi ngi jànkoonteeg jafe-jafe yu rëy. Mm. dañoo wax coronavirus bi wala Covid 19 bi. Mm. mooy troisième plus grand défi. Mm. bi Sénégal amee ba léegi mooy wax Sénégal nag damay départ ci Njaay Njaay ba léegi. Mm-hmm. bu njëkk ba moo doon nekk la négrière. ça nous a coûté excessivement cher. ay ay mbooloo junni junni ay millions nit ñoo fi mm-hmm. ñu jaay leen jàmm. beneen bi mooy la colonisation mi bi tubaab bi toogee. Mhm. waaye bii tam bokk na ci ñetteelu jafe-jafe parce que pour la première fois dans l'histoire du Sénégal. Mhm. Sénégalais bu ne jàpp na ne. Mhm. maanaam mën naa faatu ci at mii. te lim jàpp ne moo koy mën a faatu mooy jàngoro ji. absolument kon lu rëy la. ah ginnaaw nag yàlla teg nañu ñun ñu ngi fiy dund ci jamono jooju ma matu nattu boobu ñëw. ah li may mën a def rek mooy soññaat sama bopp soññu nit ñi. ne nag buñ ci bëggee génn ñun rek ñoo ci mën a génn suñu bopp. parce que jàngoro ji moom amul garab gu koy faj. du mm-hmm. garabu kër docteur du garabu sëriñ. Mm-hmm. amul ñàkk wuy nit ñi mën cee mucc. Mm-hmm. li nga xam ne borom xam-xam yëpp d'accord nañ ci ne buñ ko dee def danañ ci mucc mooy ñu raxas suñuy loxo ak a takk masque. loolu moom jàpp naa ne ñun ñëpp buñ ko defee yàlla mu kon. situation moom c'est une situation extrêmement critique. loolu nag li ko indi mooy président de la République ak góoram dañu échoué ci première phase muy la parce que dañu wax ne xoddeeku bala ngaa lakk boo xoddi ko doo lakk la. absolument waaye xoddi ko ba moo baaxut. mooy avant le mars. Mhm. matuwaay yi ñu waroon a jël ba kenn du dugal jàngoro mi dañ ko jëlut. Mhm. mooy mooy lan. bokk na ca. Mhm. soit ñu tëj frontière ci bi. parce que bañ tëjee aéroport bi xool nga cas importé amatul. moo jur cas communautaire moo jur cas contact. bu buñ teeloon tëj aéroport bi. wala moom bu ñu ko tëj ku fa ñëw ñu testé la. Mm-hmm. comme ni ñuy def nii. Mm-hmm. jàpp naa ne kon jàngoro du duggee ci biir réew mi ni mu fi duggee. Mm-hmm. kon maanaam dañoo échoué ci phase d'endiguement bi maanaam xoddeeku bi. léegi nag beneen phase bi mooy phase d'atténuation maanaam fexe ba jàngoro ji ñoom dal mu yem ci ñoom. fa mu tàmbalee mu yem fa. loolu aussi dañ ci échoué parce que tey jii réew mi yëpp jàngoro ji mi ngi fi. ñu ngi jógee ci bële ñaari nit tey dem nañ ba ak ci presque huit mille. léegi ñu dem dix mille li ci faatu mu ngi yokk bis bu phase bi nga xam ne moom la ñu waroon a xeex pour jàngoro yi ba na tasaaru ci réew mi. foofu le président de la République daf ko raté parce que. am na ay jumtukaay yu mu génne waaye jumtukaay yooyu du xeex jàngoro ji conséquence jàngoro bi lay xeex or li mu war a xeex mooy jàngoro ji sa jàpp naa ne li mu génne ci xaalis jënde ko ceeb su ko jënde woon ni masque ak gel ba nga ne jàngoro ji jóge na ci Sénégal mais euh, président masque ak gel euh, am na ñoo xamante ni tey jii mënuñu mënuñu am dépense quotidienne déedéet xam nga euh, loolu loolu surtout contexte bi nga xam ne moom la nekk président loolu wàll rek xam nga 1960 ba léegi nga waroon liggéey mënatoo dem liggéey 1960 ba léegi déggaguma hmm. sénégalais bu faatu ndax xiif dégguma ko te xam naa ni de deux mars ak léegi. Hmm. téeméer ak juróom benn fukk yu tegal ci wu nit faatu nañ ci coronavirus. Hmm. kon problème bi jàngoro bi la du du du du du xiif bi. du xiif bi kon en ah, wala boog en même temps. Hmm. ngay jox nit ñi dund. boole ca ay masque ak gel. président waxoon na ne dana dana def commande dix millions de masques. Mm-hmm. man ne yàlla may na lu sax waaye état bi moom gisaguma masque mu séddale askan bi. Mm-hmm. xëy na peut-être école yi. Mm-hmm. mais askan bi du école parce que day même ñu nekk école bi par rapport à la maladie kon. loolu lépp dafa bokk ci rek li ma jàpp mooy ñun ni ñu tàmbalee xeex xeex bi ci la raté. dañu échoué dès le départ. dès le départ parce que si xoolee bi hmm. on avait 7 à 8 cas. 9 hmm. cas. Hmm. ñu tëj école yi. dama dem ba am plus de 6000 cas. tijji école yi. bi muy def état d'urgence. boobu 79 cas bi mu mort. ñu avons dem ba réew mi am loolu 7000 cas. ak plus de 120 morts. mu dindi état d'urgence xam ngay wax yu jaxasoo yooyu la muy la muy jur mooy dañ ba mu jur askan wi dootu am confiance ci gouvernement bi c'est-à-dire bu leen gouvernement bi di digal duñ ko duñ ko dégg duñ ko jëfe mm-hmm. parce que li fii ni mooy wax yu wuute yi mm-hmm. ak jëf yu wuute yi mm-hmm. parce que nit ki boo ko nee toogal sa kër maanaam man ndax jàngal daa bari def état d'urgence tëj école yi dama dem ba yëf yi nag daj réew mépp ñu dee gën a bari nga ne leen nga bàyyi ko nga mel ne ku démissionné loolu loolu loolu baaxul. bokk nga si kon ñuy wax ne eh, échec la ak tâtonnement la ñu gérer gestion bi du Covid 19 mais c'est évident xam nga boo ma sañoon man. Mm-hmm. Euh, du demee noonu. parce mm-hmm. que échec bi leer na nañ ginnaaw bis bu yàlla sàkk moom ñi wokk di gën di yokk. Mm-hmm. bis bu yàlla sàkk fi wopp ji nekk di gën di yokk bis bu yàlla sàkk ñi ñi nekk cadre réanimation gën di yokk bis bu yàlla sàkk ñi faat di gën di yokk loolu nag la a tekki ci ndam mooy dëgg gi parce que buñ ko waxut buñ def ndànk musiba dana parce que nit ki mënoon échoué ba napp jàpp da nga am a moom président ak ñi mu àndal ak ci askan wi mooy nag ñu mobiliser waat pour jóg pour xeex. nag euh, coronavirus bi. Mm. parce que wala dinaa dinaa bu ndox tuuraan bàq fa def déedéet. Mm-hmm. su ndox tuuroo doo am bàq da rooti wat. rooti wat mooy ñu jagjaat mobiliser wat askan bi. Mm. pour seet ba xam naka la ñuy def nag ba jàngoro ji. Mm. bañ a law bi wàññi parce que. Mm-hmm. fi ñu jëm moo garaaw. Mm-hmm. tey jii Sénégal mi ngi jëm ci tabaski. tabaski ay million Sénégal dañ jub ci gox yi dem ci gox yi suñ deful ndànk daañu wasaare jàngoro ci réew mi yëpp. bu bu tabaski ay millions nit ñooy jóg dem Touba. bu boobaa aussi jàngoro ji bu ñu déglu ndax dañ ko tasaare ci réew mi yëpp. bu loolu jàllee gàmmu ñëw moo gën a dangereux parce que moom fi ñu koy defee dafa gën a bari. suñ maanaam bu ko defee événement yooyu bu jàllee te maanaam bu accès. te matuwaay yi ñu war a jël ba nit ñi di wàllaate bi dindi wuñ ko. musiba naarullahi mën naa am mën naa dal Sénégal te nag. Sénégal yi xam ne. la dal France bu accès Sénégal Sénégal moom du ko jig parce que ñun. amuñu hôpital hôpital yu mën a yu mën a téye mille mille réanimation soo kee amoon mille réanimé euh, foo mën a euh, réanimer mille personnes. Hmm. kon la muy tekki mooy képp ko xam ne ak nga ci réanimation bi da hmm. kon encore une fois li ñu këpp nga joon muy gi muy pardon tabaski gi màggal yi ak gàmm gi. Hmm. waaj dañ ko mën a waajal rek mooy nit ñi. ñu wax leen ñuy takki masque. pour man nag rôle boobu sax nekkatul rôle président xanaa la ko ca war mooy président bi. mu nangu ne Sénégal réalité bi fi am. mooy kilifa yi dina yi la nit ñi gën a déggal ci président de la République. su ko defee moom mu solo dalam. dem Touba dem Ndiassane dem Tivaouane dem Yoff dem dem dem Kaolack dem ci jàng yi pour kilifa yi diine yi wax taalibe yi. Mm. ne leen nañu takki masque. Mm. te raxasu loolu bu ñu ko defee. Mm. man jàpp naa ne. Sénégal yëpp daañu takki masque boobaa jàngoro yi kenn dootu ko wàllante. te bu ñu ko nag bàyyee wàllante rek. jàngoro yi dina fi jógee parce que damay wax toujours ne jàngoro ji moom ginnaaw ci bakkan lay jaar ak gimi mhm. suñ tëjee gimi ak bakkan ñun kenn duñu ko wàll waaye duñu ko wàll kenn mhm. kon encore une fois jàpp naa ne mhm. euh, maanaam xeex bi pour le moment jàngoro yi moom gagné na waaye li ma gëm mooy sénégalais yi yàlla may nun ressources yoo xam ne suñu remobiliser waatee yaakaar naa daañu ci génn parce que nag daje nañoo jafe-jafe yu rëy rëy waaye te ñu génn ci. alors ñi mu génne woon ci loolu jàpp naa yaa ngi wax échec euh, alors de la république ne woon nañ moom mooy général bi tey moom moo jiite armée bi ngir faire face à l'ennemi ennemi bi mooy Covid 19. moo taxoon tey ñu génne benn plan boo xamante ni plan de riposte la. Mhm. génne 1000 milliards jagleel ko askan wi loolu yëpp effort yooyu yëpp ñu def nga jàpp ne échec la président. man xam nga lu mën naa koy jàpp. Ah. li nga gi li ma lay wax gën a xam parce que yow ci médias yi nga nekk. xam nga ne bis bu yàlla sàkk wopp ji gën a ba tasaaroo ci réew mi. waaw xam nga ne bis bu yàlla sàkk. maanaam ñi wopp gën di yokk. Hmm. xam nga ni bis bu yàlla sàkk ñi nekk ci réanimation gën di yokk xam nga ni bis bu yàlla sàkk ñi faatu gën di yokk ci maladie hmm. kon kii wax dëgg yàlla loolu mooy échec est-ce que ça veut dire pas que ça reste des efforts à faire moo gën le bon échec non non non ah. c'est-à-dire que non dama koy tudd xam nga euh, dama borom benn xam-xam bu tudd kër yi hmm. baat yi bu fekkee dañ leen a tudd ni ñu leen war a tudd day yokk musiba waaw cest à il faut il faut nit ñi da koy tudd ni mu tudd parce que boo ko tuddee wut hmm. mënoo fekk loo xam ne daa baaxul nga ne daa baax xam nga loolu baaxul. Hmm. c'est-à-dire mooy nës-nësal. Hmm. mooy waxu tappale. cest à parce que bu may wax échec la. Hmm. président bi dama moom moo jiite woon xeex bi. moo échoué parce que moom moo déclaré woon la guerre. moom moo décrété la mobilisation. xëy xëy teg ay ay jaajëm ne bàyyi parce que en réalité boo xoolee président li mu def dernier discours mooy bàyyi maanaam. mooy il a récapitulé il a capitulé. il a capitulé devant devant le virus. pas de son rôle parce que moom moo décrété

voilà ñi ki bu waxee rek kay jox kenen ki ci biir parti politique yi tamit euh, frustration bi commencé na di rëy ñoo ngi dàq ñi alors est ce que c'est le moment choisi exactement président pour faire la politique. xam nga politique mom hmm. pour man yar yi rek la. Hmm. yar rek la. moy hmm. ban ak mooy di wax ak askan wi. ak waxal askan wi. te jublu ci ndariñu askan wi. waxal askan wi nak ak waxal askan wi japp na ne maladie ou pas nit ki dafa war def. absolument. li nga xam ne daal bokkul ci politique. Hmm. te xay na nit ñi di ko tuddee politique. Hmm. mooy werante boobu benn njëriñ mooy saagante. Hmm. loolu du politique loolu leneen la waaye politique moom. kon bokkul ci politique. non bokkul ci politique. saaga bokkul ci politique. tam dëmm bokkul ci politique. door nit bokkul ci politique. politique ay xalaat la. ak i xel su fekkee da ngaa nekk ci opposition. la la war mooy ngay xool jafe-jafe askan bi nga di ko nga nga di ca wax. Mm-hmm. ngir ñu saafara ko wala ngay proposer ay solution mm-hmm. mooy ma di wax ak askan bi ak waxal askan bi. Mm-hmm. loolu mooy mu maanaam mooy loolu nitu politique. kon la nga xam ne da caa bokk. ba ba nit ñi xeeb loolu bañ loolu muy muy muy loolu du politique. moom leneen la. leneen loolu nag pour man muy am mu mu maladie am mu am wala dara bañ a am mu am loolu daa jaaduwut ci démocratie. ñun démocratie mooy démocratie mooy li toog di wax. le conflit des opinions Manam nit ñi am ay wute gis-gis. te am sañ-sañu wax ko. loolu moom muy taw muy noo muy naw muy xiin. muy nees wala mu bañ nees muy mal wopp am bi wala wopp am nit ñi sax su ne dañ ko wara def. d'accord yaa ngi wax euh, le président a démissionné et mais est-ce que également classe politique bi gungé nañ ko ci xex bi président. non xam nga dafa am loo xam ne président jàpp naa ne moom moo moo wutul gunge bi. te sa jàpp naa ne classe boo xam nga boo xoolee bi événement yi door xam lan la def. Hmm. il a reçu la classe politique. absolument pour man jàpp naa ne foofu erreur la njëkk bu bu mu njëkk a def foofu la tàmbalee. ah bon erreur bien sûr. Ah. parce que xam nga classe politique ba mu leen recevoir ba léegi. Mhm. yow gisagoo benn mobilisation ñoom bu ñu def pour xeex maladie bi ndax gis nga fi parti politique bu bu bu wàcc ci terrain bi leader bu wàcc ci terrain bi wax ak askan bi mhm. déedéet mhm. ñoom ba mu leen recevoir ñu génne ci télé bi wax ba mar. booba lañ ci noppi. te bi ci des mooy Sénégal yi déglu wuñ politique bi. d' accord c'est-à-dire loolu mooy Sénégal mi. c'est-à-dire Sénégal li mu bu kim andal lu mu def baax na kim andal lu mu def baaxul kon ñooñu amuñu mënuñoo am mënu mënuñoo wax luñu dégg bu ñu def aussi so xolé ñom seen ba dañu dañoo làqatu maanaam bëgguñu woon a feeñ ci ànd ak sax président ci xéer bu ñu xéer waye bu tok nañ ci tere ba rek kenn ku ne wax waye da nga daal nopi euh man ma japp ni président ñu waral na waxal ci jamono joju moy lima tuddu sax moy kilifa diini yi parce que ginaaw feebar bi du wop wopp xam dañ koy fajj kon la réponse n'est pas médicale

manam décentraliser combat buñ ko defoon nañ ko waroon defee. kon japp nañ ne yëf yi du agsi bi malheureusement loolu la raté. alors euh, président actualité bi aussi mom mo nek rapport yi nga xamante l'inspection générale d'État génne nako mhm. alors peut-être am nga ci écho. mu melni euh, la la gouvernance est terrorisée en règle jamono ji si ay milliards yo xamante ñong koy pasar pasare té xamuñ nan lañ ko kii est-ce que euh, réellement liñ doon wax la bonne gouvernance bi doon président di woote est-ce que mom tamit échoué si ginnaaw bu mu échoué si li nga xamante mom moy pandémie bi. ah kay moom sax yaakaar naa ci mal gouvernance li jot a échoué mom ci ci pandémie parce que pandémie bi bu le 2 mars la ñëw Sénégal. ah oui waaw loolu moom échoué na ci loolu. Hmm. lu tax wax hmm. scandale bi gëna a bi njëkk am. Hmm. ci euh, rapport inspection générale d'État bi. mooy le fait que ñu toog 2020. di génne rapport 2016 2017 ak 2018. loolu moy scandale. ah bon. ñooy circonstance ñoom dañ leen a dañ leen a nomé. Mhm. Sénégal yi di fay weer. Mhm. yor leen dund ak yëre yi ngeen sol Sénégal yi ñu leen ko jëndal at mu jot ñu war a def rapport ñu toog ñu 2016 ba léegi ñu toog def ñu benn rapport. Mhm. loolu rek en soi c' un scandale et c' est une malgouvernance de l' inspection générale d' état et c' est inacceptable et je le condamne de la manière la plus ferme. beneen bi ñu des mooy. ci bi ñu rapport yi ñu génne. ay tooxi doonaa ngi ci yu ñu xas yoo xam ne ci nguuru Macky Sall ak ñum takkal ndoba tànk ñoo ko def oo lan la diggoon réew mi la sobre et vertueuse ñu wax ne damay damay damay dekkal kër yi la patrie avant le parti oui oui waaw damay la patrie avant le parti ñu mhm. pour ñi nga xam ne ñoo yoroon réew mi ñu xool seenu yorin mhm. loolu lañ ca gis mooy en réalité dëkkalu woon kër yi pour pour sanctionner ay pot ay ay ay corruption enrichissement illicite mais c'était pour liquider Karim Wade parce que vingt cinq personnes kese parce que vingt ci la ñu bokk ci ñu yoroon ñu bokkoon ci PDS. Mm-hmm. te yor ñu am lu ñu leen doon tuumaal. Mm-hmm. ñooñu kenn lañ ci jàppale ba bàgg léegi. am na ci ñoo xam ne sax ñu ngi nekk député assemblée sax te levé woon nañ seen immunité parlementaire. Mm-hmm. yor fay responsabilité am na ñoo xam ne tey ñu ngi naan dañuy créé parti politique. alors que dañu leen war a jugé ba léegi kenn jugé bu leen te euh, levé woon nañ seen immunité parlementaire kon pour xeex këpp kees mais daf ko di daf ko créé woon pour liquider Karim Wade loolu parce que moom rek ba mu ko jàppee ba ñu condamné ko. Mhm. booba la yëpp yi lañ arrêté yëpp yi. Mhm. créé pratiquement amatul fi ñu toll. Mhm. kon mooy benn bi. OFNAC moom moo ko créé. moom moo moo moo réformé la cour des absolument OFNAC boobu mu créé ko OFNAC def vingt rapport jox ko procureur de république. ba suñu jot yaay tey procureur ubbiwuñ ko rawatina sax ubbiwu ko waaye mi ngi mbala sax le euh, euh, lof nag ci loo xam ne jaaduwul mm. te président yëkkatiwul kàddu am na ñoo xam ne ci ci ñun lañ bokk of nag tudd leen ne dañoo yor seen yorin daa sell bi mm-hmm. président di leen défendre publiquement ce qui est inacceptable mm. kon bi maanaam cour des comptes aussi li mu génne mm. moom bi euh, pardon lige la la parce que naa mooy mm-hmm. maanaam rapport bi daal li mu nuy wax mooy nañ xoolaat suñu bopp mais rapport bi waxul loolu. rapport bi li wax Macky Sall mooy un. ñi nga xam dañoo def tooxi doon nañ leen tegi ni nga xam ne noonu la ñuy doxalee ba jur tooxi doon nañ ko soppi. kon encore une fois li mu njëkk échec mooy la gouvernance sombre et lëndëm. yorewul sell di. ak jubadi. loolu nag defe naa ne moom du loolu la Sénégalais xaar ci moom. parce que du mu soxlaa réew mi dafa am lu mu leen dig. Mhm. mais dina yor réew mi ci yorin sell te yaa def ne kon encore une fois li nga xam ne moom la ñu xaar ci maintenant nag ndax nit ñi. mooy ne leen su ma leen su ngeen ma dénkee réew mi dinaa ko yor ci mu sell. bañ wóolu la doole ja ñu la jox nag au nga utiliser ko pour xeex. njubadi gi nga di ko utiliser pour def pour pour euh, pour aar hmm. loolu moom c'est quelque chose d'extrêmement grave kon encore une fois. oui l'échec. Et dans de la gouvernance sobre même la la question de de la part de, de la partie avant le parti. Mm. loolu c'est c'est évident boo xoolee nomination Macky yi kon président nga jàpp ne moom moo encouragé li ni mel situation bi réew mi nekkee. Ah, xam nga bëgg démb bu toogee bi naan. Mm. ministre yi. mu mm. ngeen def déclaration de patrimoine balaa balaa mois d'août jeex.

dans le cadre de du travail de, la non-déclaration de patrimoine par les ministres, mm. c'est Macky qui prône l'impunité. Mm-hmm. Parce que 90 jours, il y a 3 mois, tu déclares déclaration, une déclaration, tu mm. gouvernement, tu tu pas tu déclaration. Parce que quand tu déclaration, jàpp naa ne doo ko bañ a déclaré kon kuy déclaré dañoo war a jàpp ne lam yor liwul hmm. ñu jox ko kër yi lañ defoon Karim hmm. Wade bu ko que yaakaaroo cette fois ci euh, dem ba ngeer parce que dégg nañ ko mu ne euh, du protéger kenn si ku nekk li nga xamante ni moom lañ lay toppee si rapport bi tu vas rendre des loolu moom jàpp naa ne xëy moo gëm ah yow gëmoo yow <laughs> mais mënu ma ko gëm ah bon président mënu ma ko gëm euh, lu tax parce que li mu jëf la hmm. mais président bu taxaw décision ki bokk ci moom waaw te tudd ko ci OFNAC hmm. mais moom moo ko doon protéger publiquement alors que loolu du liggéey la war a def mooy bàyyi rapport bu njokk procureur bu buñ bu justice seetal ko affaire u liggéey OFNAC président la mun war ta seetal mun ta seetal ki war a seetal mooy justice hmm. loolu mooy benn bi hmm. dégg nañ fi eh, maanaam xoo xoolal ñi nekk ci gouvernement bi bi ci conseil des am na lu mu làq ci biir. Ah waaw am na lu mu làq ci biir pour man. am na lu muy visé ci biir. lu mel ne maanaam am na ci gouvernement bi ñoo xam ne. Hmm. bëgg naa dal seen kaw. Mm-hmm. te bu dalee seen kaw bëggul nit ñi xas ko. Mm-hmm. mu mu jaarale ko ci déclaration de patrimoine parce que am na lu am nañ idée ci ñii defu déclaration de patrimoine bu ñu defoon daal ñooñu ñooñu bëgg na leen sanctionné. Mm-hmm. loolu nag bon ñoom ñoo war a jël seen responsabilité. soit ñu def seen déclaration de patrimoine parce que déclaration de patrimoine du boo ko du maanaam maanaam du boo ko defee dañ lay dañ lay yóbbu crédit déedéet. cest à li nga am wax ko rek. ba ba maanaam euh, OFNAC xam ko parce que OFNAC ngay wax kon li may jàpp nekk ginnaaw surtout encore. Hmm. te surtout boobu sax si seen surtout illégal. Hmm. ah nañ def seen déclaration de patrimoine. waaye man jàpp naa am na lu nit ci suuf. d' accord nag li ci kanam la dimbal. Hmm, alors président toujours si euh, rapport bi ah moom parce que moom moo nekk actualité dégg nañ euh, ki nga xamante ni moom moo nekk euh, Aliou Tine. directeur général Africa Jom Center nee il faut redéfinir la place de l'inspection générale d'État pour lui donner plus d'indépendance. vous partagez nga avis boobu. gis nga sëñ bi. li ñu war a suppar ci réew mi place inspection générale d'État état moo ci gën a tuuti. ah bon xam nga fondamentalement li a ci la présidentiocratie. Le Sénégal nekkatul ci régime présidentiel régime présidentiel président présidentiocratique lañ c'est-à-dire benn nit. Hmm. ñu may ko ci réew mi. Hmm. di di aux fonctions civiles et militaires loolu moo xam nga la hmm. au lieu que l'école en l'école ascenseur social. léegi c'est la politique qui est devenue un ascenseur social parce que booy politique ki ngay faral bu ki ngay faral bu faroo. Hmm. dina la nommer. Hmm. loolu la ñu gis nga li li ñu war a def mooy hmm. fexe ba. parce que institution générale d'État man li ma gën mooy dañ ko war a génne président de la République. Ah. boole ko ak la cour des comptes. boole ko ak OFNAC. muy li euh, assise nationale propose la haute autorité de la démocratie et de la bonne gouvernance mu nekk une autorité indépendante de l'exécutif. du judiciaire et du législatif su ko defee kuréel googu dina mën a xool naka la président di utiliser xaalis bi ñu koy jox. parce que loolu cour des comptes mënu ko. UG du ko def. cour des comptes du du xool naka la assemblée nationale di utiliser xaalis bi ñu koy jox. or xaalis bi dem assemblée nationale alalu réew mi la war naa xool nañ koy gérer. kon loolu li ko mën a am mooy mu def une haute autorité boo xam ne moom la muy xool mooy alalu réew mi fa muy dugg. jàpp naa ne loolu bu ñu ko defee man loolu dina indi indi saafara bi mhm. loolu ñu maanaam possibilité bi président bi di nommer ñëpp mhm. ñu dindi ko pour man li ma jàpp muy directeur ECOSOC bu ñu ko nommer mhm. dañ ko war a def à partir d'un appel à candidature su ko defee ña nga xam ne am nañ profil lu nekk directeur école ñu compétir ñu seet ka ca gën noonu proviseur de lycée c'est euh, nam tudati ak poste bu mën a doon même au de la justice président cour suprême président chambre yi procureur lu ci mëna do rek ñu dugo def appel à candidature bu poste vacant hmm. ñu laaj kan mo kan moko bëgg doon ñu xol ka am profil ba ñu jox bu ko defé hmm. nit ki poste bañ koy jox hmm. du ko gëna gërëne président république du ko gërëne ndayam da koy gërëne bopam parce que mérite personnel la or république tank taw manam tank mérite personnel du jox nit ki dara ja république taxawagut parce que bo gisé sénégalais gëm né buñu buñu président la may dañ ko wara délo dañ ko wara fay bor bi lool jukkal lool lañ wara dindi te fexe ba kuy falu ku ne. Hmm. la lay fal sa responsabilité parce sa ngóor ak bopp moo la ko may. d' accord kon encore une fois ñu war a réformer ci Sénégal. Hmm. man jàpp naa ne tabaxaat beneen république bu bees moom la ñu war def. c' est à dire lu ñu gën a yokk yëpp yi di gën a jëm ci musiba Sénégal moo laaj ñu taxaw ko. Hmm. tëggaat ko. parce que nag am na avantage bu nekk ci coronavirus bi war na Sénégal noo di noo faay. suñuy jafe-jafe war nañu ko. ci wàllu njàng ci wàllu koom. ci wàllu ci wàllu maanaam mbay napp mhm. sa économie réew bu nekk ni nga war a taxawee li mu wan nañu ñun ne suñuy suñuy faiblesse li ñu war a def mooy mobiliser wu mhm. pour jàng ci coronavirus bi tabax beneen Sénégal gu bees boo xam ne kenn du fi doon buur bay bu mi mhm. boo xam ne li nga xam ne mooy jox ñu ci réew mi ak nguuraat boppam lay doon waaye loo xam ne day neex président dogal mën mu naqari ko loolu mooy tax bu boobaa administration bi fonction publique dutu tak ci parti politique parce que ñeñe nek dañuy xamni seenu njambar njàmbaar leen di jox ndomba tak wala mu xagn leen kon liggey bu reey reey la boo xam hmm. dafa laaj xalat malheureusement nak au Sénégal politiciens même ak société civile bu ñu hmm. xalat hmm. ñom xalat bu gatt gatt lañ yor parce que duñu xalat lu ñu pour réew mi jóge jafe-jafe yi mu ne d'accord président euh, sank maa koy wax tamit euh, si présentation bi moy nekkon nga député jité won euh, li nga xamanteni mom mo nek groupe parlementaire bu coalition Benno Bokk Yaakaar laata laata ngeen di wacc si 12 deuxième législature bi. Mm. ñu dem ba dàq la si parti bi nga xamante ni moom moo nekk APR sax si par rapport li ma doon wax tout à l'heure mooy sa mel ni dafa amoon beneen cas bu mm. bu tudd Moustapha moom tamit. Mm-hmm. mu mel ni léegi Moustapha moom ñoom daal APR moom ñoom ñoo fay semer la zizanie ba nga xam ne dañ leen di dàq tey ñu dàq ki nga xamante moo nekk Moustapha Cissé Lo d' abord si bi d' abord yow nan nga gisee dàq boobu. waaw naa ne man bokkuma ak moom situation. Mm. man moom bu dee assemblée. mais dàq dàq la rek président déedéet dàq lu ah, ah, ah. dàq rek. ah dàqu dàq bu dee assemblée nationale ci Dakar ak ci laa jëkk a def déclaration. mais hmm. dootuma nekkaat député maanaam sama mandat di jeexee damay bàyyi. loolu a def déclaration tout absolument. bi ma président nommé itam lan ma fa jëlee. Hmm. mooy bi ma li ñu commencé jafe-jafe. Hmm. mooy affaire euh, pétrole euh, euh, pétrotim. affaire pétrole bi. waaw ci la ñu amee jafe-jafe parce que man damaa yëkkat sama kàddu ci télévision publiquement boobu maa ngi nekk ci cabinet ba man ne président bi waru a jox euh, Franck Timis euh, euh, na mu tudd ci licence bi. Hmm. joxe raison yi mooy d' abord l' article huit. du hmm. président respecté ko. Hmm. deuxièmement ginnaaw Franck Timis rakki président bi moo ko nekkal ci mi. président war naa jomb di jox ab permis koo xam ne day day liggéey ak rakkam. loola naqari bi ci tegu nag mooy bi ñu ma laajee ci bi ñu dàqee Sory Kaba ci avant troisième mandat ma ne waru ko dàq. parce que bu ko dàqee day mel ne dafa day dugal ci bopp nit ñi ne président dafa bëgg troisième mandat. ñaar li Sory Kaba wax constitution moo ko jëkk a wax. ak président moo ko jëkk wax. mooy lan président Macky Sall mënut a am troisième mandat ba ma mu bindu décret dàq ma. Hmm. kon man li ma dàqee bokkut ak li ñu dàqee Cissé Cissé saaga. day président jotoo si kii bi déggoo déggoo. non du ah. ah, ah, saaga lu fi sa ay xanaa bokkut ak ñi muy saaga. dégg laa foofu laa jëm ci. Cissé hmm. saaga na fi sa ay ay kilifa diine te dàquñu ko booba. Hmm. d'ailleurs même président moo ko doon jubaleeg ñooñu. ah bon bien sûr. loolu ki Sénégal yëpp xam nañ ko bu la neexee nga dem xool xooli gu nga googliser ko xool nga googliser ko da <laughs> <laughs> nga gis. Hmm. Euh, am na ku ma dégg ci ci ci ñim ñim saaga mu ne fukki at ak benn mi ngi koy saaga. Hmm. kon bi ci des. troisième élément bi mooy Cissé Lo ci boppam nit toog na ci barab. yëpp tudd bàyyi Cissé Lo teg ca lu bon. wax ko lu bon. ci entourage président. non ci ci dip ko ci ci affaire la bopp. pour naa kooku kenn ko. su fekkee ne dañoo dàq Cissé Lo ngir saaga. Hmm. ki saaga bàyyi Cissé Lo nañ ko dàq. war nañ ko dàq. kon encore une fois pour man dàq bi. Hmm. ki ci saaga du dëgg dañu dañu wax lu leen neex bi ci des. ñu hmm. ko dàq jaaduwut. alliance pour la république parti la. parti dafa am statut ak réglementaire gis nga statut réglementaire yi fonction bi mu am ci parti mooy li alxuraan am ci diine. al islam. Moi, li fait am ci diine l'islam maanaam moo régir moo koy organiser. des con des textes. texte parti bi. parce que parti ci texte lay sukkandiku. absolument comme république ci hum, hum, hum, texte parti bi. daa wax bonique bu nit ki tooñee buñ ko bon, dàq bu ni bu maanaam ñi bi mooy le secrétaire exécutif national. c'est-à-dire fonction commission de discipline. secrétaire exécutif national moi, ko moi, moo quand am. kon li ñu li Macky Sall créé man du ma ko tuddee commission de discipline dama ko tuddee commission de guillotine. parce que dëppawul ak statut bi de mu wax. Ben, buñu bu bu fekkee dañ dafa gëstu. li nga xam mom lañ lay jiiñ. bu defee day def rapport jox ko président parti président parti bi nag moom dong moo am sañ-sañu dax kon président Macky Sall li mu santaane rek la ko moom rek mako est-ce que du mom mo daxlu ci cadre bi non warut a parce que sañu à dire nag yow yaa bu bëggee daw nak fuir sa responsabilité. c'est de l'irresponsabilité c'est un scandale pour un leader bo xam da ngay daw ses responsabilités. kon encore une fois si loolu ni ko daxé daal bi ci des mooy bo xolé même ci bind bi. dañu né il est exclu définitivement. or exclusion définitive Tu parti bi. rek règlement le conseil national. Comme, maanaam benn li pour man dire que parce que daana saaga te ko ñaar niñ ko respecté violé statut d'accord, je parti bi. Euh, loolu que li nga fondamentalement de démocratie interne dans la paix. le confinement du débat démocratique dans la paix.

daf ko waron habillé ah, alors moy dëgg gu rafle dëgg gu rafle mooy dëgg goo xam dang ko dang ko jaxassé ko saga hmm. bu waaye nit ñi yu nga xam ne ñoom bëgg ñoo déglu saaga duñu deggu déglooti hmm. mais bu jitt sax bu ñu lay deggu ci sa saaga rek lañuy wax parce que bo xoolee ciolu coow ci saga lañuy wax or ci biir wax ji am na lu ci nekk hmm. loo xam ne xëy na parce que tuddu na building tuddu fi ay ru jiw ak yeneen ak yeneen japp na su ko waxon ci calmement manam ci langage politique bu leer lay ëpp njëriñ ci mom lay ëpp njëriñ ci askan te xëy sax boobaa dax gi ci am du ci am. Mm-hmm. kon encore une fois. Mm-hmm. li ma jàpp mooy euh, am na lu ne ci biir loolu nag laaj na. Mm-hmm. ah gouvernement bi président Macky Sall mi nga xam ne moom la Sénégalais yi fal. accusation yi mu yëkkati teg ko ci euh, mbirum building euh, kii bi. building administratif building administratif bi. wax ko ci terre bi. ah loolu nag jàpp naa ne ñëw nañ moom amal nañ ak askan parce que nag Moustapha Cissé Lô c'est pas n'importe qui. niveau de responsabilité bi mu nekk ak xëy na yëpp mën a xam. amna lo xamne bu ko tuddé japp na né tontu mo japp tontu nak moy wane né li wax dëgg la wala du dëgg hmm. su dé dëgg ña nga xamne ño def tooxi doon ngi sanctionné bu du dëgg nag ñu war nit ñi ne li mu wax du dëgg Sénégal yi boobaa dañ ko président wo que di aussi euh, à la place que ñu dakh ko waron nañ ko déglu ba ñu xam non loolu mo nekk ci statut yi article 22 bu réglementaire du APR da wax ni nit ki bu fekkenté né hmm. dafa dafa def dara hmm. vraiment suuf mu nekk lu urgent urgent dañ ko wara a suñ ko dégloo ba mu wax moom liñ koy jiiñ rapport boobu lañ jox président du parti mais nag moom dégluñ kenn xam nga après kenn moo jàpp ne moom il a droit de vie et de mort sur les na xam nga lu tax mu garaaw mooy moom bi muy wut réew mi Abdoulaye Wade ci kaw ñun ñëpp nu wut ko buñ fa nekkul woon Abdoulaye Wade da koy sànq buñ fa nekkul woon Abdoulaye Wade da koy tëj ci kaso bi balaa 2012 suñu taxawaay ak wër buñ ko wër moo tax mucc bi des hmm. ñun suñu bopp malgré que rôle bu rëy rôle bu ne joué na ko ci nguuru Abdoulaye Wade hmm. tooxi doon ko Abdoulaye Wade def bu ne bokk na ca hmm. teewul ñun dañ ko raxas ba mu set wecc ñuy jëm wala ko Sénégalais ñu ne kii mat nam réew ma ma ma ma mën naa yor yorum yorum réew loolu nag su fekkente ne dafa am yow nga yor parti ànd kook say nawle su fekkente ne da ci am ñoo xam dañoo wàccoowul ak parti bi dañ leen a war a jaarale ci yoon wi parti bi tëral ne fii la nit ci mais malheureusement day toog kii di mer. ak a dikkale. <laughs> président ak <laughs> xam nga boo Cissé même Cissé Lo boo ko déggee mu wax danga naan woy damaa gëj gis président ma gëj koo xam ne bis bu yàlla sàkk boo masaan xëy balaa nekkoon boo ko boo ko boo ko gisul mu war a nelaw foo nekk. <laughs> foo dem fu mu dem fu ne yàgg fu yóbbu. Hmm. soo toogee ñeenti weer boo ko woo du la wuyu. Hmm. waaye waaye sëñ bi nag ku la ku la cof nga wadd. d'accord nit ki buñ ku la cof rek daaw da. Hmm. ma di la ko digal sama doom nga ku la cof rek waddal. absolument ku la yëgut yëgal sa bopp. dëgg ginnaaw moom Macky Sall mën na ko muñ na ko muñ moom. man de la alors euh, Moustapha Diakhaté Dakota nañ ko APR Moustapha sisselo dax ko si APR muy ñaari Moustapha <laughs> pour la refondation euh, de l'alliance moy Manko taxawu sunu APR. est ce que président yow est ce que néo dit comploter ben affaire pour yow ak Moustapha euh, Non, taxawal ben am

waaye du tax ay ay ay far bokkuñu xeex man sama xeex dégg nga wax ñaari yii la wax ak askan wi ak waxal askan wi mosuma maa dégg may waxal sama bopp kenn musuma maanaam Macky Sall mi musuma koo ñaan dara sama bopp. Hmm. musuma ko ne nommé ma sama jarbaat wala sama brak musu am. waaw su ma koy wax ci nit rek ku ma bokkul dara lay doon. cadre ampli euh, kii massification sa sunu alliance. non nga soxla di nga soxla ñu mel parce que xam nga poids électoral de Moustapha Cissé ak pas-pas yi ma am. Hmm. gëw ma ne genre politicien yi nga xam ne ñoo nekkoon ci réew ba léegi man ñoom laa soxla. ah oui parce que nag damaa jàpp ne. man hmm. dama bëgg Sénégal maanaam yoon mi nu jaar lépp 1960. Hmm. te Senghor teg na ci. te mu war na ne luñ ci gën a yàgg gën a gën a gën a sànq. dana war a dëpp. d'accord cest à Sénégal nii muy doxee moo mënta nuyu parce que boo xoolee fondamentalement Sénégal ci organisation société bi ak réew mi. dafa mel ni rek bi tubaab yi demee. dañoo remplacer tubaab yu xees ay tubaab yu ñuul. waaye ni tubaab yi yore woon réew ba léegi moom lañ moom la ñuy doxalee. d'accord te loolu lu nu dal mënu ko teg. kon fokk ñu teggi loolu teg fi leneen. Mhm. soo bëggee tàgg loolu nag teg fa leneen jàpp naa ne day baax. nga am ñoo xam ne ña ngay àndal mooy ñoo xam da ngeen a bokk pas-pas. d'accord alors euh, président yow euh, décidément yow euh, tu n'as jamais été tendre avec ton ami yaa ngi wax c'est mon ami le président de la République. j'ai pas dit que c'est mon ami. Hein? c'est pas dit que c'est mon le président de la république. Ah, ah. yaa ko doon conseiller également. mais temps yi dégg nañ la nga ne euh, il y a euh, boo xamante ni dañ koo def ki nga xamante ni mooy président Macky Sall ak euh, ñenn ci waa PDS pour ñu liquider li nga xamante ni moom mooy parti démocratique sénégalais. oui non mais xam nga. loolu révélation bu mel noonu nga xaar ba léegi soo koo joxe président nga front boobu jóge PDS. Ah. da ca am ñoo xam ne Macky Sall dem na sax seen kër di leen jaale seen mbokk ñu ñu bañ ko recevoir. seen kër xaar maa ngi xam nga nit koo xam ne président daa ñëw sa kër bëgg laa di la jaale sa mbokk nga bañ nga bañ ko xaar nga dem ba nga naan man liggéey président Omar sah, nga xam hmm. hmm. hmm. ne moom moo front boobu ñu ñu maanaam Macky Sall waxoon parlementaire pour ñu ko àtte ci kër yi suñ jekkee ba yàgg ñooñu maanaam bo maanaam lu boolaa ne kenn dikkatul ñu da wax dara ci sax ñu ne ñoom d'accord nañ ci maanaam liggéey président de la république loolu sa ñaaw na ci rek waaye Sénégal yëpp jàpp nañ ni ñoom ñooñu seen mbir moom moom la ko tax a jóg hmm. mooy bu mbir ñu sottee daañu bokk ci gouvernement Abdoulaye euh, mag sal hmm. te bokk gën la nga xam ne mooy nekk jeexital muy gën a liquide Abdoulaye autrement dit hmm. contradiction bi am ak diggante Macky Sall ak Abdoulaye Wade noonu gi dox seen diggante Macky Sall fàttewul bosam or man li ma jàpp mooy keroog mu fàlle président bi la war na fàtte noonu gi mu am ak Abdoulaye Wade parce que dafa xuloo ab Abdoulaye Wade Sénégal yi jox ko dëgg gis nga daawuda booy xoloog nit mhm. aw saw askan jox la dëgg dëgg googa da nga cay yem mu doy la sëkk jërëjëf muy utiliser l'état d'accord pour di xeex Abdoulaye Wade parce que sénégal yi ñoom xeexal nañ ko Abdoulaye Wade ba régler problème bi kon encore une fois su fekkee foofu la toll rek jàpp naa ne ak leadership am des na d'accord alors mbokk setan euh, Dakar Actu TV euh, li ñu dese si waxtu jeex na président euh, duñu te duñu wax si li nga xamante la moom moo nekk question foncière bi. dégg nañ coow li ca Ndengeleer Babacar Ngom la paysans yi nga xamante ni ñoom Wa nekk waa waa waa waa Ndengeleer waaye coow loolu laata muy éclaté la nga foncier bi fii si Dakar suñu littoral nga gis polémique yi nga xamante alors président en deux minutes ban commentaire ngay def ci lolu ak également gestion bi nga xamanteni mom lañu wara def ci walum foncier bi. Euh, walum foncier mom toy limi bari muy len rek waral. Hmm. ñak respecter les lois de la république. gis nga daw bo jógee taxaw sa tank yi mo lay taxaw taxaw. tout à fait. république tank yi koy taxaw taxaw moy la la loi. Hmm. su ñepp respecter la loi rek jamm na benn bu dé bu dé le littoral. Hmm. mais la loi dafa lay fay daf ne bu géej ci fexé dell wala dex gi. parce que ñoy yor même règle bi. boo dawee 100 mètres diggante 100 mètres yooyu ak géej gi kenn wul faa moom dara. kon bu fekkee nit dafa am dara kak ko jox moom moom yow laa wax su fekkee moom moom am maanaam kenn jox ko ko waaye daa yore tàkk dëkk. kak yor na moo ko war a dindi. Hmm. loolu mooy benn. bu dee lu mel ne le domaine national muy apport ndengleer bi ak wala jilax hmm. pour man jàpp naa ne ku tudd Babacar Ngom tooñ nga ko. Hmm. Babacar Ngom deful dara. xam nga kan moo def dara mooy Macky Sall mi ko jox titre foncier. Ah. un titre foncier illégal. je vais vous expliquer. allez-y loi domaine national daf ne. suufu suufu kaw. ñu dëkk ca kaw bi maanaam com communauté rurale rek moo ko moo ko a joxe. muy délibér affectation. délibération. ki ñu koy jox ku dëkk ca communauté rurale rek la war a doon. Babacar Ngom dëkkul deng la dëkkul ji la. kon communauté rurale waru ko jox suuf si. kon délibération bi dafa illégal. su préfet ba ma nekkoon te validé délibération il est complice d'une illégalité Nous une délibération nous jox ci Babacar Ngom bàyyi le bail Le ñu c'est de bail fondé sur une illégalité kon ña ko jox baay bu muy bu dee domaine. Hmm. ñooñu ñooñu war nañ leen a sanctionné. kon jàpp nga ne am na maguy si biir. xaaral maa gën déedéet xaaral maa gën rek. Hmm, allez-y. maintenant jël jox ko président de la république ak délibération ba mu jox ko titre foncier sur un décret. Hmm. président du moom président la n'est pas le conseil rural de. de de Ndengler de de Ndengler wala de ja de Ndiaganiao wala de Sindia la n'est pas le conseil rural de Ndiaganiao ou de ou kon moom sañ-sañ joxe fa suuf. deuxièmement ki ko kon ki nga xam ne mooy Alick moo def tox diwlin mooy le président bi fekk joxe un décret illégal qui repose sur un bail illégal et une délibération illégale kon moom moo def te lu waaye Babacar Ngom dafa dara maintenant bu loolu jàllee li ma jàpp mooy laa loi sur le domaine dañ ko war a suppar ñi daaw boo fekkee da ngaa dëkk Kolda wala nga dëkk Mbadakhoune war nga soo demee Bayla wala Tay nga mën faa am suuf c'est-à-dire ab Sénégal waruñu ko wax ne ko yow fii rek a am benn. jàpp naa ne ñi nga xam ne ñoo dëkk ci bi war nañu leen jox ay ay jumtukaay yoo xam ne bu du nekkul titre de propriété ñu am ay bail yoo xam ne kenn kon dañ lay daggal li yaaxu moom. l'essentiel nag mën nañoo def condition yoo xam ne doo ko jaay kenn parce que danger bi nekk ci affaire euh, mbirum Babacar Ngom bi. su fekkente ne sédiment des sociétés anonymes. Babacar Ngom mën naa xëy na ko mën naa xam nga société moom moom société bi mu jaay ko par exemple un australien wala un israélien wala un français. Hmm. su boobaa mu ngi moom suuf loolu mooy danger moo tax président bi acte yi mu def c'est un acte grave. Hmm. maintenant pour man il faut qu'on réforme le foncier au Sénégal pour que baykat yi mën a am ay titres de propriété yoo xam ne daañu ko mën a déposer ci banque yi pour wut ay financement parce que gis nga alal bu fekkee suuf bu fekkee moomoo ko doo a def alal jëm ca war a def pour mën caa liggéey. parce que boo fi sottee alal ju bari te yow même boo faatoo say doom duñ ko doon. Hmm. loolu loolu moo tax nit ñi di nit ñi ko def kon am ko sax bu ñu bëggee moderniser suñu agriculture jàpp naa ne war nañoo mën a fexe ba béykat yi ñoom ca fa ñu dëkk ñu mën a am ci suuf si loo xam ne dañ ko mën a jëriñoo ci wàllu di ko di ko tayle ci banque pour ñu mën am ay financement bu ñu ko defee yaakaar naa développement agricole du Sénégal dina gën a gaaw. président ñoo ngi lay gërëm di la sant. déedéet man maa leen war gërëm ndax. li ma la wax sànq ne la politique moom ginnaaw mooy wax ak askan wi hmm. ak waxal askan wi ku la may foo ko defee rek kooku yow yaa ko war a yaa ko yaa ko war a remercier maa ngi leen di gërëm bu baax euh, yàgg nañu yàgg ngeen ma jox seen micro ma di ci yëkkati kàddu hmm. te réccuguma ko euh, maa ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yéen parce que bi ngeen ba leen mujjee dajeeg yéen ca booba maa ngi nekk jëppal booba ak seen bu leen fii tey ngeen ñëw fii li may ñaan yàlla xëy na ñu dem ba ci kanam hmm. ngeen am seen télévision comme ñëpp amiin leen di seetaan ci internet mais awa ndax mën yi parce que jàpp naa ne liggéey bi ngeen di liggéey moom Sénégal yi war nañ cee gën a jot am te kon nag internet yi moom ñi ngi xewlu ci yéen waaye yeneen Sénégal yi nga xam dañuy internet euh, maanaam xëy na sax mënuñoo manipuler internet <laughs> war nañ bu ñu am possibilité ñu mën a xool seen télévision ci Dakaractu gis naa yeneen ñoo xam ne ñu ngi koy ñu ngi ci yéen yéen itam foog ngeen dem foofu wut licence ngeen am télévision numérique. Hum. en même temps ngeen di def euh, euh, nu ci internet hum. mais aussi sénégalais, yi mën leen di seetaan. en tout cas dans le monde, le ngeen war a gën hum. et c'est ce que vous avez les aptitudes techniques. le la crédibilité pour mériter qu'on qu' fasse confiance. et là je demande aux autorités de la République vous ngeen demee de télévision numérique ñu de leen tout cas loolu moom lu baax ci message bi xam na ah PDG dina ko dégg waaw dina accélérer li nga xamante ni. waaw na ko accélérer merci beaucoup Dakaractu TV <laughs> d' accord <laughs> numérique d' accord <laughs> internet yi doon seetaan Dakaractu ñoo ngi leen di jaajëfal jox leen dig daje fii ak ay fan yu néew jërë ngeen jëf.